mbind mu sell mi nee na ci jëf ya saar ñaar aaya ñeent fukk ak benn ba aaya ñeent fukk ak juróom ñaar ñi nangu ay waxam nag ñu soobleen ci ndox te ja bés boobu lu mat limub ñetti junniy nit yokku nañu ci ñoom ñoom nag ñuy wéy ci njàngaleem ndaw yi ak cig bokk ci damm mburu ak ñaan ci yàlla ragal jàpp ñépp te ndaw yi def ay kéemaan ak ay firnde yu bare ñi gëm nag dañoo booloo te bokk lépp ñu jaay seeni suuf ak seen alal seddoo ko ku nekk ak la ngay soxla te bés bu nekk ñu saxoo teew ak benn xalaat ca kër yàlla ga tey damu mburu ca kër ya ñuy lekk seen ñam ak xol bu laab tey bég di màggal yàlla te am yiw ci wetu nit ñépp noonu bës bu nekk borom bi di yokk ca mbooloo ma ñi mucc